Euh, Ibrahima Ka di président mouvement Sénégal 2024 gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi di ñaanal nag euh, xalif général de Mouride di sëñ Muntaxa mu sëriñ Basiiru Mbakke yàlla yàggal ko fii ak mboolem kilifa diine yi ci àdduna bi yépp di ñaanal nag waaye dawlu yi yi nga xamante ne te yàlla dogal nañu wàcc liggéey suñu boroom xaare leen àjjana ci sama biir mouvement bi nga xamante ne te moom la créé femme développement nekk ci te Soxna Fall jiite ko it ñoo ngi jàll ko xam ne kenn la woon ci ñun muy Soxna Urey Njaay nga xam ne moo nekkoon secrétaire bi yàlla na ko yàlla xaare àjjana mu dëkk Daaru Xuddus waaw jërëjëf euh, Babacar Sénégal 2024 euh, ñoo ngi dollee santaat yàlla bu baax comme ni nga ko waxee euh, diir gi nga xamante ne yàlla dogal na mu juddu def nañ fi ay programme yu bari ndax fii ci Touba la juddoo te Touba saa su ne damay wax ne dafa am ay réalités yu boppam lépp loo xam ne yaa ngi ko fi def. la nga war a njëkk a def mooy da ngay xool la méngoo ak taarix bi nga xam ne tey mooy taarixu dëkk bi saw doxalin nga doxale ko noonu bari na tey ji taax mu fi màbb fondation ba lañ préparé wut ñun nag bi ñu jógee yàlla dogal na réunion bi njëkk a def fii fii lañ ko defee ci Touba am ay initiative yoo xam ne dañ ko jël ñu ne li ñu njëkk a def mooy soppi doxalin wi nga xamante ne tey ñu ngi koy doxee ci biir Sénégal rawatina politique bi ak développement bi ak sociale bi muy waxantelu ñaaw jëflantelu ñaaw ku la defal tey bu la defalut suba nga dal ci kawam ñu woote fi benn assemblée général bu mag boo xamante ne tey Sénégal gépp teg nañ ci seen bët ñu ànd kook ay jigéen yoo xamante ne tey yu jàmbaare te nekk ci gannaaw femme battante muy Soxna Fall ñoo ngi ko defee woon théâtre pare parrainé woon ko nag collectivité locale yi woon ci ay autorité yu bari ñun saa sune rek li ñu war a def dañ koy def waaye nag buñ ca paree nag pare nañ ca mu réussir totalement ñu jëm màggalu maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul muy bi passé ñu gis ne safar bi nga xamante ne tey baaxoon nañ di ko def di ko waajal màggal gi muy set setal bi nga xam ne taalibe sëñ Tuubaa ñu ngi koy def ñu woote woon bernde fii ci pencam Paaleen di ci gërëm bu baax sëriñ Moustapha mu sëriñ mussa ma fa nekk teewaloon ki nga xamante ne tey mooy suñu xalif général di murid suñu wasila di sëñ Muntaxa di sant it njabootug Cheikh Ibrahima Fall ñu jaaroon ko ci suñu xarit suñu wëllëre di sëriñ Cheikh Fall Mbawar mu jàppandal ñu lool penc ma boole ñoog rakkam di sëriñ Alaaji Fall keroo moo teew si woon ci turu waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall yépp ñu jël ci suñu ñaq bopp ndax mbir boo ko dee def da nga koy tàmbalee ci sa bopp kero togg nañ fa ay bernde defar nañ fa junni sandis yoo xam ne ganaar lañ ko defaree togg fa juróom benn mbana yoo xam ne tey ceeb la wut ñaari téeméeri saa koy ndox yoo xam ne tey yu sedd guy la ñu seddale ko taalibe sëñ Tuubaa yi nga xam ne tey ñu ngi doon bale dëkk bi médiatiser wuñ ko nag ndax ka tax ñuy def moom am nay bët muy yàlla mi nga xamante ne tey moom la Sëñ Tuubaa doon liggéeyal ak suñu yónente bu baax di yónente bi sallallahu taala alayhi wa sallam booba ak léegi nag ñoo ngi ci activités yi lépp loo xam ne maanaam day tax jigéen ñi ndax tey dañ ne àdduna boo ko dee tabax danga ko war a jaar ci jigéen ñi ak ndaw ñi femme développement moom kenn umpaleetu ko ci fi nga xamante ne tey mooy Sénégal rawatina département Mbacké ndax booba ak léegi Mbacké ak Touba ak Sénégal en général ñi ci ëpp duñ créer waaye saa yoo créer ñu dugg ci sa biir bëgg a tas sa mbooloo mbooloo mii nag day mbooloom yàlla ndax dañoo ànd ci dëgg tey jii li ñu njëkk a soppi ñun mooy jigéen ñu nan lañuy ñuy demlantee ñuy def chaque la 30 dañuy daje chaque la 15 dañuy daje indiwaat nag la nga xam ne moo daan indi seen i xuloo muy ci seen kuréel yooyu ñu tuddee ay ndawtal ñu dàq loola. woo leen ci baax goo xamante ne tey ñoom seen jëm bopp dem nañ ba amlante ci amlante boo xamante ne tey macha allah ndax tey boo xoolee yow yaa ngi dëkk ak sa mbokk biir Touba lu mat fukki at xamantewu leen te kuréel bi tax na ngeen ngeen xamante ngeen di deflante muy jëflante bu rafet ñuy jaay di jënd am na sax projet boo xamante ne tey ñu ngi ko dëgmal ñoo ngi defar kafe muy kafe femme développement ñu ngi koy jaay partout ci biir réew mi. Euh, am na usines yoo xamante ne tey pare nañu pour ànd ak ñoom liggéey nga xam ne tiga dégg la ñuy liggéey ak li nga xamante ne tey mooy wàllu wàllu embouche mooy yar ay jur muy ay nag waaw yooyu yëpp mi ngi fi incha allah euh, balaa yàgg rek projet boobu dañ ko tàmbali ñu créé nag ay kuréel yoo xamante ne tey yu fasantikoo la ndax tey ji muy kuréel bi nga xam ne créé nañ ko muy politique et développement ak beneen boo xam ne muy Sénégal 2024 muy jeunes yi ñi nga xam ne tey jii mooy bi basiru Dieng jiite ñu wut beneen boo xamante ne tey tey jii mooy femme développement di woo leen nag ci dox jàmm ndax lu dul jàmm rek jàmm moo ko gën ñu ci profité di ci sant bu baax ay kilifa yoo xamante ne tey ñu ngi ci dox jàmm boobu ku mel ne soxna maam Faati Mbakke mu sëñ Alaaji Baara ñoo ñëpp ñu ngi ci biir ak ñu mel ne euh, ki nga xamante ne tey mooy soxna Fatmata Badji ñoo ñëpp ñu ngi ci biir ci kuréel boobu tey ji ànd ko nag ak ki nga xamante ne tey ji fi mu toll nii mooy gaynde kër baylaat gi di soxna Fall muy présidente bi di sant nag bu baax femme développement bu kaw Kaolack bi nga xam ne moom la Fatim jiite ànd ko nag ak euh, suñu xarit suñu wëllëre suñu sëriñ di sëñ Babacar Mbakke mu kabaro mu sëriñ Moussa mu sëriñ Basirou tey jii mu doon loo xamante ne tey lu am solo la ci ci ci ci en travers Sénégal boo demee ci diaspora bi waaye Espagne ñi ngi fi ku mel ne ñoom euh, comment dirais fa kii Fat Diop Espagne Mously ñoom ñoo nekk ci diaspora bi nga xam ne tey jii boo demee ba côté Cap Vert ñoom ña nga fa ku mel ne ay Kumba Dagg ainsi de suite yooyu mu doon loo xamante ne tey lu am solo la si te ñëpp ba ci ñi nga xamante ne tey ñoo ŋànk femme développement bu Touba mooy coordinatrice bi di soxna Ndumbe Fall ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm ci li nga xamante ne tey depuis diir ak booba ñu jóg ak léegi vraiment ñoo ngi def ay démarches yoo xamante ne tey ndax la ñu njëkkee woon ca koor ga mooy social social ba ñu njëkkee woon ca koor ga dañoo wut suukar wut tàndarma wut li nga xam ne te moom la sëriñu daara di euh, bëgg ñu yóbbul leen ko léegi nag am nañ ay programme yoo xam ne dañu ko dëgmal ci koor gi ubbi nañ Makka 2020 pour fas yéene yóbbu ñi nga xamante ne tey mooy ñi bokk ci biir femme développement Makka ba ci góor ñi kooku it dafa bokk ci li nga xamante ne suñu projet la. Poroxaan it bientôt war nañ fa dem ñoo ngi ci sant sax bu baax Serigne Moustapha mu Serigne Moussa yóbbu nañu Poroxaan wutal nañu fa ab dal may nañu fa kër goo xamante ne tey kër Maam jaar lay doon incha allah képp koo xamante ne da bokk ci kuréel bi kër ga ñun ñëpp di taalibe Serigne Touba. kër ga suñu kër la incha allahu rabbi bu ñu fi yàlla bàyyee poroxaan bii di ñëw fa la ñuy màggalee réew mi de fii ñu toll nii euh, dañu war a fàtte politique bi nag te indi li nga xamante ne tey mooy tax réew mi dox bala maa jàll rek euh, bu yàggul son excellence président Macky bi nga xam ne jóge na Ranérou programme woon na benn programme bu mag dans le département Mbacké wane ne sàmm yi ñoom la jagleel li nga xamante ne tey mooy sixième journée bi nga xam ne dañ ko war a def ci Sénégal jagleel ko région de Diourbel en particulier Mbacké ñu def ko nag fu ñu ko war a defee ndax tey jii bu ñu dee tànn ak càmm tànn fu mel ne kayel kayel it kenn ku ne xam ne ci taarix dëkk la boo xamee ne tey ay sàmm ñoo fa dëkk muy suñu bokki alpulaar loolu lu wér la ma bëggoon rek noonu ñu tànnee ci octographe ni ñu ko taxawalee dañ ko waroon a continuer noonu ci ni nga xam ne tey mooy doxin wi en général nag Sénégal mën nañ la afficher film comme ni ko gone yi waxee afficher gangster dawalal la euh, indo te loolu moo ëpp ci li nga xam ne tey mooy doxin wi ci biir Sénégal. foofu li ma fa bëgg indi tuuti rek. fii ñu nekk muy zone boo xamante ne tey muy département Mbacké dama koy faral di wax amul ay usine amul ay géej ñun li ñu am mooy càmm ak mbay kon bu ñu demee lu toll ne président di fi ñëw ma dégg ay kilifa yëkkati ay baat ñuy wax ne amuñu tali amuñu forage amuñu lii amuñu lii tey ma jàppoon ne tey bu fekkoon ne fi mu toll nii dañoo woote ci wàllu càmm bu ñu waxoon ne sax forage boo xam ne bu jur gi naa ne sax dinañ xam ne lii. vraiment lu yenu maanaa la ma xool ki nga xamante ne tey moo jiite gàlle ay naabe tey ndax lam doon wax pulaar la région de Diourbel Macky Sall ñoo ngi lay sant ñoo ngi lay gërëm mel na fii problème amut ci wàllu càmm gi te fii kenn ku ne xam na ne tey jii fi mu toll nii département Mbacké dafa am ay réalité boppam président Mamadou Ka maa ngi koy sali mu ngi may dégg ak moor Diarra ak euh, ki nga xamante ne tey mooy El Hadji Ousseynou maa ngi leen di remercier bu baax ñun dañu amul lu dul fii. gàlle ay naabi tey ji ñoom dañoo demoon ba amoon ay jafe-jafe yu dul jeex ñu daan daje ca élevage bu Mbàkke bokkoon naa ci ñi ñëwoon ci ñoom doon leen conseil doon leen teete ak di leen jàppale ba tey ji seen dernière réunion bi nga xam ne tey def nañ ko fii ci commune Touba ànd ko sama frère Abdou Lahad Ka en tant que éleveur keroog bi nga xam ne yàlla dogal na ñëw nañ Grand Moulin da leen doon subventionné 10 pour cent ci seen ripaas Abdou Lahad Ka mii tey ji jàppale leen woo ministre bi fexe ba nga xamee seen tey état bi ki nga xam ne mooy Aminata Mbengue Ndiaye dañ koy saluer ndax liggéey bu rafet la fi def jàppale leen defal leen 10 pour cent ci seen kii ñu am 20 pour cent at lañ dawal am 60 millions ci seen kees mën a demal seen bopp loolu dañ koy saluer te waroon nañ koo wax te waxuñu ko ca jataay ba ñaareel bi mooy tey jii fi mu toll nii fii nga xamante ne tey mooy abatubaar bu tuubaa bi. kenn ku ne xam nañ ne nguur gi passé ba ñu jël initiative pour def fi abatoir dañ daan gis na nag yi dañ leen daan dàqee Daara Jolof ba dakaar ñun dañ ko war a moderniser ñu ubbi fi ab abatoir lañ ci jublu woon mooy nag yi dañ leen di lottal fii dere ñu yóbbu ko ngaay liggéeyee ko ay dàll yàpp ñu yóbbu ko dakaar ñu ñu jëfandikoo ko te tey ji abattoir boo fu dugaloon aw béy paaka nga koy rendee mais pour pourquoi waxuñu ko bu fekkee da ngaa woo docteur ba mu ñëw fekk si la mu war laa faj wax ko sa jàngoro. waruñoo taxaw politiser affaire bi tey département Mbacké boo gisee ñu arrière dañoo jël politique bi jiital ko te politique waruñu ko dëkkee politique saison bu gàtt la ñu waxante dëgg saison bu gàtt la te tey ji man dama rus bi fi président di ñëw kenn ku ne yaa ngi yëkkati say pancart wane wu ñu jafe-jafe département Mbacké mais li ñu doon wane mooy seen bopp di saluer bu baax nag ki nga xamante ne tey mooy son excellence président Macky Sall ndax tey jii dafa am tuuti rek loo xam dinaa ko leeral Babacar lépp lu nit ki sàkku rek sàkkul sa ngërëmal wayjur Macky Sall tey ji lépp loo xam ne sa tey am na ko ci réew mi ngërëmal ñaari wayjuram moo ko may ba tax na nit ñu baax ñëpp la am mais nag teewut nag kilifa bu fekkee dalaa fekk si bu ñëwee da nga koy wax li nga xam ne sa tey mooy réalité yi tabaski gii ñu génn mbote moo xam ne dañ koy leew muy nàmp ci ndeyam ñu di ko jaayee cent mille francs ñu ne président affaire bi dox na kañ lay dox tànn ay conseil spécial yu dul jeex di duunal seen i poste waxuñu ko li nga xam ne te moo xew ci réew mi kañ lay dox Sénégal ñun pour ñu dox faw am ñu nu ñu changé yëf yi moo tax ñun ñu am initiative créer suñu mouvement boo xam ne dañ ko tuddee Sénégal 2024 fii ak 2024 ñun dinañ fi teg loo xam ne seen tey lu bees pulu la politique bi nag jotagut waaye saa yi jotee bu ñu wàccee ci terrain bi dinañ xam ne ñun am nañ programme te xam nañ fi ñu jëm am réew pour mu dox faw ki nga xam ne mooy jiite réew mi lépp loo xam ne seen tey programme am la dañ ko ciy war a jàppale. wax na ne dafa bëgg yëf yi gaaw mais yëf yoo xam ne dafa gaaw nan ngay mën a yaree saw fas xont ko maanaam jox ko pepp mu lekk ba suur nga yootu tànkee jatanke ko nga naan dafa dina fanaani daara jolof mën naa am ay weer te du àgg te looloo mooy li nga xam ne seen tey moo dal président ak ñi nga xam ne ñu ngi koy jàppale. dañ waxante réalité Babacar. y a beaucoup de problèmes tey jii en localité am na fi ay problèmes yu bari yoo xamante ne tey jii fi mu toll nii bu doxut loolu la ndax tey barki démb képp euh, suñu frère Aline Sall ñëw na Mbacké convoqué ñi nga xamante ne association des maires mais c'est association des conseils municipaux ndax sans les conseils municipaux les maires duñu dem booy wote budget conseil yi ngay woo booy laaj xalaat conseil yi ngay woo mais booy demit waroo yóbbu sa xalaatu bopp da ngaa war a yóbbu xalaatu conseil bi kero bi ñu ñëwee foofu maa wax ci sama turu commune devant la maire muy commune Dalangaabu ma wax ko li nga xam ne seetaan mooy li wér Aline la ñëwutoon pour di faj suñuy jàngoro dafoo ñëwoon pour xam lii dox lan la ñu ci baree bari ay doléance lañ teg foofu mais man li ma ko wax mooy que ne ñun suñu jëm bopp de dañoo xaarut kenn bari na tey jii commune boo xamee seen tey bu récolté woon budget si probam mënut a am 15 millions ñu def ko commune. indi acte 3 bii ma ne leen acte trois bii mbir la moo xamee seen tey bu ma ko doon def ci xayma di ko joxe exemple mu ngi mel ne liir bu juddu indaale ay bëñ préparé wuñ ko ab commune bu fekkee ne fi mu toll nii couvrir mat juróomi village nga bëgg koo def ab commune pour mu dox dina jafe kon dañu war a waat xalaat yi xool. nan la ñuy def pour yëf yi dox. budget Touba xam nga tuuba day dëkk boo xam ne c'est spécial dama ko wax ba tàyyi wax ko ba sonn tey fi mu toll nii tànninu conseil bi dafa feeñ ci ni conseil municipal bu Touba di doxe ndax Touba dama koy faral di wax dëkk la boo xam ne dañu wax ne jàng tubaab yorut Touba da jàng Touba di sant bu baax nag di ñaanal suñu sang bu baax ba di sëñ Saliou Mbacké. yàlla na yàlla yokk leeram bu fekkee ne tey jii Touba dañu ñëw di tànn ay conseil soog ñu félicité ki nga xamante ne tey moo fi nekk muy le maire bi ñu koy jox commune rurale lañ ko joxoon biir commune rurale bi am expérience boo xamante ne tey jàng na ko ci biir expérience bi mu jàngee woon ci loolu dafa wax ne commune bi warta mën a dox sans autant acteurs yi mu tànn ci borom saret yi muy saretie yi mu tànn ci secteur transport bi mu tànn ci jeunes yi nga xam ne tey ay jeunes talent la ñu ne ci biir dëkk bi di politique ak di yëngu ci li nga xam ne mooy association yi tànn ci li nga xam ne tey mooy secteur yëpp benn lañ tànnut te boobu doxut fii muy jigéen ñi ndax kenn ku ne xam na ne parité du dox fii. tey jii nag bu fekkoon ne jàppale woon nañ ko ci tànnif woowee ñu tànn tey kenn ku ne nga xam ne tey indi nga say xalaat kon nii yëf yi demee du ñu demee mais ñu ci bari dañ leen a tànn ñu ñëw ci commune di fi mottali ko daraja ndax kenn xamu leen woon. te sans ñu tànn leen waruñu woon a doon dara ci Touba mu doon lu metti te Touba dafa am ay réalité village boo dugg am na ku fa sëriñ bi teg muy chef de village ba tey dans les quatre-vingts villages bu fekkoon ne chef de village lañ def ay conseils municipaux kon lii am du am barki dem maa ngi dégg sama frère Sidi Mbacke mu ngi wax ji les adjoints des maires bi ma ko dalee wax yàgg na bu ñu tànnee ay sëriñ def leen ay adjoint yow ki nga xam ne moo la war a yilif yow nga bëgg ko di ko yónni mënta dem tabaxal nañ leen fa ay bureau mais tey jii boo xoolee dix yëpp daanaka boo xoolee ñaar képp a cay ñëw te saa yu ñuy cité nag kenn la ñuy muy le le maire la ñuy wax un conseil municipal mënut a dox sans les conseils maa ngi dégg ñuy wax suñu frère Madické Niang ak keneen ku mel ne moom muy Samba Yacine ak yeneen autorité muy la ak ñeneen ñoo xamante ne te ay autorité lañ te tey ji lu ñu am Sëñ Tuubaa tax ñu am ko mais pour ñu waroon a fay naar bi xoromam. waruñu woon a loo xamante ne tey ca kaw la nekk li ñu waroon yootu mooy li nga xam ne moo tax ñu bokk muy Touba. ku gedd sa kër maam ñëw dëkk ci Touba tey ji ñu tànn la def la conseil municipal mosoo faa jaar boo nee gëm nga dëkk bi it man mënuma koo nangu. na ñuy bàyyi di fekkalante ak a demalante ak di mottali nit ñi seen i kaddu ak di xalaatal nit ñi naan sëñ bi nii lay def sëñ bi kenn du ko xalaatal sëñ Touba moo yoral boppam dëkk bi dañuy sant bu baax nag sëñ Muntaxa ndax bi mu njëkkee toog li mu woo ci ñi nga xam ne say mooy taalibe yi mooy ci xam-xam université la fi teg képp koo xam ne nag yaa ngi dox te li ngay dox dox tegoo ko ci xam-xam doxinu gunóor rek ngay dox dal ci dara soog a dëpp li ñu war a njëkk a def mooy retourné waat passe bi ñi nga xam ne xamuñu lan mooy taarixu Touba ñu jàngal leen Touba suñu gaynde gu màgg muy sëñ Abdou Lahad yal na yàlla yokk leeram am na ñu daan bàyyi fii jumaa ji di julee ji Mbàkke fii la woo ne leen ku fi mën a muñ suñu jumaa ji war ñu fee muñal suñu dëkk bi te loolu dañ ko war a delloosi demal ci rond point Touba bii poste contrôle lañ fa defoon lu ñu fa daan contrôler ñiy tux tey mën nga faa am une de temps loolu doo ko gis ay oto lañuy jàpp ak leneen ak leneen ak leneen dama bëgg nag spécial Touba boobu ñu war koo mën a delloosi. Touba dundewut ci alalu état ñoo ngi félicité comme ni nga ko waxee sànq muy Touba ca kanam Touba moom du mës a dem fenn lu ci kanam rek ndax kenn ku ne xam na ne ba sëñ Touba dem ci géej gi. bato bi mu ñetti mètre sëñ ma ndumbe xabbaan di wax ci xelam de sëñ tubaa de yoon wi nga xam da nga koo sas fare tàmbali laa miin yow de yàlla boo ñibbisee yàlla bu fay sëñ tubaa ubbi li nga xam ne mooy fenêtre bi woo ko ba muy ñetti yoon mu ne ko donte ne samay mbir bant boobu la bala maa ñibbisi naa fekk mu soppaliku bu tooy kon jër jërëjëf sëñ tubaa kenn ku fi wax doonu ci dara sëñ tubaa kese la ak koo mën a doon nag kenn lañu war a bàkk kenn lañu war a kennal muy sëñ tubaa tey jii nag boo xoolee Touba ci jëm boppam ak nii ñu bëgg a politiser dëkk bi bukki nag bu yabee ponkal ci doxin wala lii réalité tey jii ñi war a lijjanti ñooy lëjal ki war a lijjanti nag bu lëjalee day ànd di lëj te dëkk bi kenn képp fi nekk muy sëñ Touba. Cheikh Mountakha moo fi nekk ak ay rakam yoral boppam dëkk bi ànd ko ak ay rakkam réalité boobu ñun dañ ko war a jël félicité ko ci jàppale ko ci te loolu mooy norme yi. waaye dem ay fekkalante ñaan ndax diw lañ fi teg ak ndaw diw la ñuy teg fële loola moom ça ne va pas du tout ma bëgg nag tuuti nag am loo xam ne dama koy def comme témoin ci le maire moomu nga tudd ndax tey dama wax ne nit bu fekkee ne saa sune yaa ngi koy wax safaan ba te saa sune bu xëyee di yokk moom wurut a tontu kenn wurul wutit ku koy tontul waaw wërta tontu kenn wurul wutit ku koy tontul ndax tey wolof dafa wax ne képp koo xam ne yaa ngi dem ngoro bu la yàlla ndiigoo nga daan kon jarul ragal lii réalité mooy nañu delloo si li nga xam ne seen tey mooy réalité yi Touba man de sama proposition fii ci dëkk bi mooy mënuñoo jël ab dëkk dagg ko ay village tey ji boo ñëwoon fii ci xayra tey ji ki fi nekk sëñ Jili moo fi nekkal sëñ Modou Moustapha Falilou mu teg fi suñu baay bay Saliou Gueye te bay Saliou du conseil ñañ fi def ay conseil ñëpp dañu di ko nettali dafa am loo xam ne pour ñu dox Babacar c'est impossible mënta ne nañu jël nit ñi nga xamante seen tey ñooy autorité yu Touba autorité yu Touba nag passé wut sëriñ bi amul leneen bu ñu nee autorité Touba sëriñ bi képp la tey jii boo demee Sénélec da ngay am problème nga dem gendarmerie da ngay am problème nga dem hôpital da ngay am problème fii ngay tànn ab docteur yóbbu ko ci hôpital ba mu war faa nekkal ki nga xamante ne tey mu askan bi la muy njëk def mooy créer ab clinique am ku koy lijjanti. barki démb ñu ngi fiy coow ay diw yoo xam dañ ne dañ koy xelli ku koy lijjanti mais les conseil municipaux ñoom lan mooy seen njariñ ci dëkk bi tey nga war a jël ay information war ko indi ci conseil bi soumettre ko mais boo ñëwee la ngay wax say privilèges kese ngay wax doo fa wax loo xamante ne tey lu yittal dëkk bi la loolu nag dafa war a jeex ñun nag suñu mouvement bi ñu créé Touba gii la juddoo réunion ba mën nañ koo def ci péncum jumaa ja defuñu lu ñaaw waxuñu lu ñaaw te saa yu ñu jógee li nga xam ne sente mooy réalité dëkk bi ci la ñuy xëy ci la ñuy gont te dëkk bi tey ji nag coow li li fi bari bari bari li wolof bi an coow li ci teen bi daal gars yi amul baag la muy politiciens yi du leneen politique bi nag heure bu ñu ko waxee tey jii dafa yàq secteur yëpp arabisants yi les mouvement les marabouts les mouvements charretiers yi les mouvement transport les mouvements dem na ba ci xam ne association des jeunes des mouvements mais fu ñu jëm mais dañoo war a arrêter seet nag feuille de boo xam ne tey bu ñu ci jaaree war nañoo mën a dem bientôt ñoo ngi jëm ay élection locale Touba waru ñëw tudd fii élection locale ndax du dëkk buy wote mais nu ñu mën a def def seeni i lobin def seen i pexe tey jii erreur bu mag bi nga xamante ne tey def nañ ko dans le département Mbacké fexe ba nga xamante ne tey euh, li conseil départemental ñu yóbbu ko ci opposant ba pare bëgg yëfi dox xottu cin du mën a togg dara Touba musta contre pouvoir nañuy xool li nga xam ne mooy bëgg ak sëñ bi saa yu ñu xëyee ñu ciy xëy di ci gont Babacar. sama moo bu mujj rek mooy di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di doole ñaanal rek Sénégal suñu borom def fi jàmm waxoon naa ko fii avant les élections locales élection présidentielle ku dem ci YouTube bi fii laa toogoon wax ko. bi nga ma posé question ci son excellence président Ablaye Wade ndax moo ñu yar nga am loo wax booba pour bu ñëwee may leen bu ñëwee jàmbari ngeen dégg ndax ba muy ñëw dana ma bu ma àggee dinaa def lii dinaa def lii dinaa def lii ñëpp di séentu ne bu ñëwee tey ji moom jëm boppam Sénégal dina tàkk fii ñaan yu baax yi fi mag ñi ñaan kenn mënu ko yàq lan moo ci mujj ñu toog fii ci Masalik Jinaan bi ñoo ngi sant bu baax suñu sëriñ mu jubale doom ak baay taxaw fii woo président kàddu yu rafet yi mu ko wax lebaloon nga ma kon kenn ku ne da ngay fas yéene leble lu baax loo leble rek moom lañ lay fay yal nañu yàlla defal jàmm ci barke borom Touba maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam.